yoo xam ne état bi day teg ay mesures yoo xam ne ku ko mun a respecté nga daw ku ko mën a respecté nga bañ a daw parce que le président dafa ubbi le transport interurbain bi nga xam ne uniquement dans les département mais nit ñi dañ ko bëgg lawal pour tout le Sénégal te loolu defe naa ne mooy li nga xam ne moom mooy lor nit ñi bu loolu weesoo ñun ASIR aussi nee nañ bu ñu xeexee ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a ànd ak seen liggéey ay opérateurs économiques ñun ñu jàpp ne bu fekkoon ne demande bi dafa jóge woon ci transporteur yi bu ñu ci doon taxaw di naan dañoo bëgg ñu yóbbu ñu te amuñu ñu yóbbu ci lay gën a neex regle réglé ñoom ñi nga xam ne ay économiste lañ ay opérateur lañ ñu taxaw di laaj ne dañoo war a transporter nit ñi te transporter nit ñi mooy yóbbu feebar fu ne parce que feebar mënul demal boppam ay nit ñoo koy yóbbu bu loolu weesoo ñu gis nañ ne état bi aussi am na ay liggéey yu muy def ñun nag comme askan bi ma fi tax a jóg ñu ne dinañ dem saytu yooyu pour xool lan bi li gouvernement bi defar nan la war a taxawee pour usager yi seen seen bopp. am na ñoo xamante ne ay chauffeur lañu dañu demoon liggéeyi yàlla def fa ñu demoon couvre bi am interdiction bi am mënatuñu ñëw fi nga xam ne moom la ñu nekk dañu yore njaboot dañuy am ay doom yore ay soxna ma koy ñaan di ñaan aussi état bi.